génne album bu bi nag liggéey nañ ko ci trois ans mais recherche yi rek presque def naa ci deux ans album bi dikkal ma cinq ans bon metti woon na trop parce que buñ la xamee ci scène musicale bi ngay génne ay album di jouer nit ñi di la gis tout le temps ngay jouer ay soirée day mhm. am say voyage di ko dóor di ñëw macha allah buñ toogee benn ans boo xam ne peut-être gisuñu la dana ni kii ci lu mu nekk mais ci li ma nekkoon nag moom mooy album bi nga xam ni moom laa génn muy album Air Afrique pour def ci beneen façon musique boo xam ne mën nañ ko jaay sur le plan international loolu moo tax album bi diire metti na nag mais def nañ ci beneen façon musique boo xam ne xame woon ko woon Yves Niang parce que ñun dañu war a def musique boo xam ne dafay voyager day bokk ci festival yi day xëccoo ay prix dañu war a def musique boo xam ne day day gagné ay trophées léegi nag loolu soo ko bëggee def vraiment nga toog Sénégal rek jàpp benn musique di ko tëgg sa public di ñëw ngay gagné sa xaalis neex na trop mais sa musique après fii lay yem da ngay dem ba benn moment da ngay caché xam nga. te loolu wax dëgg fa yàlla moom laay bañ moom laay bañal sama mbokk musiciens yëpp parce que Sénégal dafa bëri ay talent bëri ñu mën a way macha allah mais bon. dañu nekk ci benn voix boo xam ne ak benn musique boo xam ni c'est vrai que neex na jaay naxar na jaay moom la ñu xam nag moom la am mais dañ doon recherche ji leneen loo xam daal dinañ ko mën a jaay sur le plan international moo tax sax dañuy dem xool vidéo bi nga xamante ne def nga ko muy clip boobu bees li nga xamante ne mooy album Air Afrique bi di mm-hmm. xaalis mm-hmm. te wuti ji xaalis di xëccoo te ranga yaatu na ak si bu bees bi nga xamante ne moom la Ive eh, Niang ñëwee ñu gis ci feneen waaw mooy li la wax rek mooy li ma demoon liggéeyi mhm. daf ma jëlal nag ay at yu bëri mhm. parce que wol Music mhm. yombul am na festival yoo xam ne tey jii pour nga teg fa sa tànk wala yenn maison de disque yi pour nga dugg fa wala yenn plateau yu mag yi pour nga di fa nekk il faut nga def musique boo xam ne wóolu musique la ñëpp a koy bokk ci àdduna bi te ñun Sénégal am nañ ay talent mën nañ woy am nañ ay style yoo xam mën nañ taxaw ci kaw chaîne am nañ ay instrumentiste am nañ ay musicien am nañ ay bindkat am nañ ay studio yu baax mais pour nga gis ñu ci yenn yenn festival yi day xaw a jafe am na suñu yenn mag yi nga xam ni ah, ak suñuy papa yoo xam ne jot nañ ko def bon loolu nag dafa xaw a disparaître tuuti quoi dafa xaw a manqué ci ñun ñi nga xam ni ñooy génération bu mujj bi te teyit am na yeneen génération yoo xam léegi ñi ngi ñëw ñu ñëwee war nañ fi fekk dara mais ñun bu ñu jugul dem ci niveau international bi rek ba suñu rakk yi ñëwee dañuy naax saay duñ xam fu ñuy taxaw parce que ñun fa ñu nekkoon ñoom fa lañ nekk moment bi mhm. loolu nag moom moo tax man ma reculer pour mieux bien sûr pour mën a def musique boo xam naa ko mën a jaay sur le plan international. Mhm. vraiment moo taxoon ma def lii. Mhm. waaw bii di xaalis waaye am na yeneen euh, titres yoo xamante ne mu ci album yi yéen ci mën a jàpp. bon titres yi mën naa wax ne yow sama complexe nga parce que xam nga lépp <laughs> macha allah jàpp nga ci album bi. Mhm. bokk nga ci ñi ñi ñuy promouvoir album bi def nga ci benn vidéo bu am doole boo xam ne macha allah tax na ma gën a sawar toog ak yow mais am na xaalis mooy bi jàll léegi. am na fier d'être africain am na sabar gu tas am na wanni big ma way ci diggante Sénégal ak Mauritanie am na àq dëkkandoo am na xarfal jigéen am na ay cëmbër macha allah album bi daal huit titres yooyu la quoi. waaw ñan nga composé àndandool pour def album bi. waaw ñi ma àndal ci album bi nag mooy waa culture urbaine. Mhm. mooy Matador suma frère suma xarit. vraiment moom laa dem. waxtaan ak moom ni ko dama bëgg a def beneen beneen beneen musique mm-hmm. te am naa yaakaar ne ci yow nii mën naa ko am parce que boo ko nekk Pikine maag moom macha allah. Mm-hmm. vraiment mu waxtaan ceeg rappeurs yi waa Africulture urbaine ñu ñëw vraiment ubbi studio bi commencé composer morceaux yi defar beat yi parce que ci beneen beat laa war a ñëw ak yeneen façon wayin ak yeneen façon temps yoo xam ne war naa ci way euh, macha allah ñu toog nag liggéey ci liggéey nañ ci pendant trois ans. macha allah ba réaliser album bi. lan la Ivian envisagé def euh, ci ci kanam ci wàllu li nga xamante ne mooy production musicale ci Sénégal. bon en tout cas euh, li ma doon joué mbalax ba léegi bàyyiwuma ko parce que dama ci am ay répertoire boo xam ni. nit ñi dañ ko bëgg. mais euh, je préfère euh, focaliser wu ci ci ci ci lancé bi ma nekk nii muy wol musique bi parce que Sénégal tey jii amatul lu ñu fiy toog di ko fii di ko fii di ko fii di ko fii confirmer waaye nañ ba ñëpp xam ñu macha allah kenn dootul laajte Evian mais nag léegi liñ naan euh, li mbëri di wax naan bëree dóor wut buntu la rek boo jàppee danga war a liggéey li ñu war nag moom mooy tey jii ñun nan lañ mën a jëlee suñu musique jaay ko sur le plan international parce que tey jii war nañ am ay trophée war nañ nekk ci festival yi war nañ gagné ay maison de disque war nañ organiser ay festival yoo xam ne macha allah dinañu permettre artistes fi nekk di jouer ci festival yi dinañu permettre ñu man di jëli ay ay yeneen musiciens ñuy ñëw yeneen chanteur wala yeneen chanteuse ñuy jugee Afrique wala Europe wala États-Unis wala fu ne di ñëw fii Sénégal pour que ñuy mën a produire benn musique boo xam ne ñëpp dinañ ci mën a bénéficier wu xam nga festival dafay jur hôtel yi dañuy liggéey macha allah ñëpp ci bénéficier wu transporteurs yi xam nga macha allah euh, oto yi yi macha allah tonneau yi xam nga ñëpp ciy gis seen bopp ñun daal vraiment loolu lañu envisagé quoi. dañ mhm. mhm. la bàyyi xam naa nga yëkkati xam naa ne sa album bu bees moom yu bëree ngi ci xam naa nañ ko découvrir loolu euh, petit à après mais euh, sama yaay. nga <laughs> xam nga boobu boobu boobu ko pare pour def ko acoustique léegi. waaw nga. waaw boobu xam sama yeneen sama répertoire yi ma am dafa riche ay loo barale barale romb loo moomul ay ah, jaalo ko ba jokko yaa faagay. Ah. garab bu la sutur du la may ker bàyyi laay bi. Mm-hmm. loolu lépp doon ko bëgg après def ko acoustique. Ah. waaw mais nga kii ci doom ju baax moo noppal yaayam. yaay ju baax moo noppal doomam. doom ju baax moo noppal yaayam faatu moom dafa bëgg yaayame yaay ju baax moo noppal doomam doomu ndey awa jub njaay sama jigéen la doom ju baax moo noppal yaayam ñoom foofu <laughs> en tout cas euh, kontaan nañu da dalal la fii ci plateau cercle des arts Ive Niang mhm. donc di euh, wax nga tàggatoo ak askan yi rek ak ni nga xamante ne moom nga gisee musique bi actuellement mhm. nag euh, am na avancé le temps nga waaw bon <laughs> musique bi am na avancé macha allah Sénégal moom dëkk dëkk dëkk dëkk musique la mhm. vraiment soo xëyee nit ñaa ngi déglu musique bu ñu mm-hmm. yewoo bu ñuy bu ñuy añ ñu ngi déglu bu ñuy reer bu ñuy tëdd ñu ngi déglu ñu ngi baali clip yaa ngi daw musicien yaa ngi liggéey mm-hmm. vraiment dëkk musique la mm-hmm. mais wax dëgg fa yàlla